soit un taux de positivité de 9,58%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 86 contacts suivis par mon service, 9 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre zone de captage 1, Castor 1, Benetali 1, Gibraltar 1, Golfe Sud 1 et Touba 4. 100 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs est déclaré guéri. 19 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3348 cas ont été déclarés positifs, dont 1686 guéris, 39 décédés et donc 1622 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Assalamu alaikum askan Nous ñu ngi leen di jottali lim bii ñu am ci mbas mi ñu Covid 19 fii Sénégal ci bésu tey bii di alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 jot nañu résultat yi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom bi ñu dellu see ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñetti fukk ak juróom-benn moom lañuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñoo leen di toog di leen sëy juróom-ñeent nag ñoom ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi zone de captage benn Castor benn. benn golfe benn ñoom ñëpp nag ñu fii ci Ndakaaru fee ca Touba gis nañ fa ñeenti cas communautaire téeméeri patient mooy ñi nga xamante ne hospitalisé nañ leen bi ñu leen saytoo gis na ne seen yaram àndatul ak doomu jàngoro nañu fukk ak juróom-ñeenti cas grave nag ñu ngi koy am ba léegi ci suñu bërëbu sauvetage yi mooy maanaam service de réanimation yi nekk ci biir hôpital yi nga xamante ne ñoo tëdd hôpital ñu ngi am ak dal ba mbas mi jubee Sénégal ba léegi ñu fàttali ko mooy 2 mars ñaari fan ci weeru mars 2020 ñu ngi toll ci ñetti junni ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn wër nañu fanweer ak juróom-ñeent génn nañu àddina làkk nañu ci nga xam ne tey ñoo des ci lalu hôpital yi ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ministère de la santé et mu ngi doon di ñaax askan bi ñuy topp bu baax digle bi nga xam ne jox nañ leen ko bu ñu ko defee mbas mii ñuy wax Covid 19 dina jëm ci Sénégal mu ngi leen di gërëm di leen di sant